élection bi wóor na ma wóor yàlla Macky dana doon passé pourquoi Macky dana doon passé Macky dafa liggéey fu ma toll nii Macky def na bilaa bu am solo liggéey na liggéey bu am solo ci département Goudiri balaa Macky nekk ci pouvoir département Goudiri ñetti dëkk dongo ma am courant mooy Kotiari Balagaar et Goudiri li des yëpp amul benn courant mais tey tey diggante Tamba ak Janké ma xam mun nga fi compter lu ma dix central solaire bu guddee xale yi dañuy fo kenn du ragal côté ndox aussi avant Macky Sall ñëw forage moo nekkoon ci département Goudiri mais bi Macky Sall ñëwee moom li mu defar juróom-ñaari at yu mu def vingt cinq forage y a dix sept forage nga xam ni mu ngi fonctionné yeneen yi ñu ngi ci en chantier kon waaw mun nañ wax ni ñu ngi doog xam ni l'état am na Sénégal fu mu toll na gumbeel luñu lu ñu desee mooy ci wàllu yoon ak ndox tuuti comme exemple Samba Guita Kañube c'est sept kilomètres mais bu nawetee il faut nga def quarante kilomètres pour a dem Kañube xam nga yooyu yëpp euh, buñ ko defaree ci développement la bokk